alors euh, Alioune Tine forcément dañuy euh, parce que li tax ma ko doon laaj kan mooy Ba Ndaw c'était pour comprendre fan la jógee. Mhm. Euh, c'est une affaire de militaire. mais forcément da ngay poser ay questions da nga naan la classe politique malienne dans tout ça. Mhm. lan moo ciy responsabilité ak fan la nekk. Mhm. xam nga Ba Ndaw moo newoon aide de camp Moussa Traoré. waaw aide de camp Moussa Traoré. <laughs> oui tout à fait. bon problème mu Mali. ak suñu problème yi dafa war a tax tax ñu xaalaa xalaataat mhm. suñu problème yi ak suñu état yi ak suñu institution yi c'est-à-dire su fekkee ne classe politique ñun mhm. ñi fal nañ falaat falaat en réalité euh, ñuy def le pire le pire xam nga am na ku def benn kii Sidibé bu nekk mhm. dañu jóge ci euh, état familial l'état c'est moi à l'état des colonels <laughs> boo ñëwee def patrimonialisation. nga def ay élection booy xool élection yi ñu am ci sous région bi yépp régime yi. bu ci légal ak bu ci bu ci légitime lu tuuti la. lu tuuti la. soo itam toog nga déglu politiciens yi li ñuy articuler ak li ñuy xalaat ak li ñuy wax nekkatul ay bataille idéologique ni meloon donc léegi booy xool ñan la ñuy maye xel imaam yi. oui oui que. le, le le discours politique n'est plus un discours audible soo ñëwee poste ngay wut jël ressources yi alors ça fait que aujourd'hui la classe politique est responsable de ce qui s'est passé responsable militaires yi ñëw au lieu de dire écoutez ñun dañuy jéem xool naka la ñuy gis ay nit ñoo xam ne ñooy def transition bi ñu ne puisque tout le monde mange on va manger oui. le militaire oui. donc ñi jël kii bi muy CNSP ils ont rusé c'est-à-dire que il faut le dire euh, le sommet des chefs d'État et de gouvernement yi doon négocier moom ak Assimi mhm. ils ont tout fait pour que moom mu bàyyi civil jiite <laughs> mhm. ils ont tout fait mhm. parce que dem ci kii daf ci moy et puis booy xool protocole bu njëkk bi bi muy doog a commencé fu ba toog mu toog ci wetam. waaw <laughs> di recevoir ñëpp ñu en même temps amoon na temps ba nga xam ne sax. Mm-hmm. bandaw ndaw dafa meloon ni kuy def grève. <laughs> foofu la jëkk commencé ñu naan day démissionné ak du démissionné parce que mm-hmm. xam nga ko moom tamit dañu ni dafa gaaw a gedd <laughs> bandaw waaw bandaw dafa gaaw a gedd mm-hmm. alors euh, temps yi nag ñoom tamit pour un peu se parce que ils ont tout pris les militaires ils ont tout pris booy jël tey nga jël nga jël nga jël même les gouverneurs de région même les gouverneurs de région les deux tiers ay ay ay militaires lañ ak ay ak ay policiers ay commissaires de police mm-hmm. ils ont tout pris oui mm-hmm. c'est-à-dire que dañuy ñëw en réalité les gens ils vont ils ils se servent mm-hmm. donc état bi waxuma ne mi ngi quatre appuis Mali mais Mali ngi trois appuis et c'est extrêmement important ñu def attention parce que état bu ne trois appuis ba pare ñii nga xam ne samba boy yi ñi ngi fi xam nga bés bu ne ñu rey te tchadiens yi nga xam ne ñu gënoon efficace. jóge nañ fa ce qui veut dire que c' est beaucoup plus vulnérable. les tchadiens ont quitté le Mali. monsieur gis nga bi bi ñu nee dee na kii dee ci lañ dem. parce que en fait gars yi ñu leen doon attaqué. Mhm. attaque yu métti su France intervenir woon peut être que gars yi. Mhm. ñëw moom xam na ci dara. c' est vrai dëgg la tu comprends. donc tey mhm. Mali. man ci sama bopp. dama ko tiital te Mali dégg la. xam nga. mais mais Aliou est-ce qu'il y a pas risque que l'État disparaisse au Mali. mais écoutez déggoo ma la état trois appuis la ne li ma lay wax nii. c'est une image pour ñun ñi xam. ça veut dire le caractère aussi vulnérable. mën na nërmeelu complètement complètement. c'est-à-dire que je ne comprends pas que militaires yi nga xam ne normalement ils doivent être des stratèges et puis ñoom ñooy les dernières institutions yoo xam ne moom na ñu appuyer mais tey waruñ ko wax. mais mais y a y a des divisions de l'armée ah mais attends mais écoute ils ont pris des généraux dugal leen génne guñ leen sax <laughs> ñu ngi jëloon comme défense ak euh, comment dirais-je sécurité ñu ngi ñu ngi en prison mais je mm. pense que dañ leen bàyyi mm. parce que quand même au niveau au Mali mm. gars yi ngi liggéey tam parce que j'ai vu que le bâtonnier de l'ordre des avocats Moustapha Cissé dem na seeti leen ñoom ñoo négocier ba ñu bàyyi déjà ñoom Bandaw ak Mouktar Wan mm-hmm. ak ñi tamit ñu bàyyi leen donc man je pense que il faut que état yi mm-hmm. xool nan la ñuy def une dissuasion forte pour que militaires yi jóge parce que foofu du seen place kii c'est un gars d'élite ça veut dire que air armée bi mm-hmm. les gens les plus aguerris moom moo nekk seen pas paasam du nekk président de la république ak président de transition c'est un bon soldat comment mm-hmm. comment lutte contre le terrorisme gis nga lutte contre le terrorisme gars yi gën a xarañ moom mooy seen patron mm-hmm. kooku quand même nga baal ma ak en réalité. oui seen métier c' est tuer. force spéciale c' vrai. les forces spéciales moom mm. mooy patron. Mm-hmm. donc moom dafa war a dem. c' est pas n' importe qui ah. léegi léegi n' importe qui mm-hmm. donc il faut ñu xool user de voie diplomatique. Mm-hmm. ak de voie une dissuasion forte pour que franchement ñoom. ñu dem toppatoo ji affaire militaire yi même su fekkee ne dañuy négocier ak ñoom. su fekkee ne am na lu ñu leen war a jox ñu jox leen ko ñu kii wala lu ñu leen war a rassurer. te bañ leen topp quoi mooy leen rassurer beneen bi mooy. Mm-hmm. sanction yi il faut faire extrêmement attention. Mm-hmm. tey américains yi nee nañ ñoom seen aide yë yëkkati nañ ko c'est bu sanction yi tombé. Mm-hmm. c'est bu état bi nekkee quatre appuis mais c'est foutu. y' a presque pas d'État parce que donc il faut ñu def très attention mu nekk des sanctions ciblées sur des gens yi nga xam ne. ñoom ñoo amee responsabilité yi mais bu ñu leen bu ñu bu UEMOA ne dañuy bloqué. je crois que on avait évoqué ça dans un premier temps le Sénégal avait dit non. man ma ne bu ñu àgg foofu. kon nag Sénégal moom la mooy ma UEMOA bloqué. bu ñu punir le peuple malien parce que ils ne sont pas responsables. dinañ ci ñëw ak euh, la responsabilité de la communauté internationale ak taxawaayam. CEDEAO Union africaine euh, nag. yu demee noonu Nations Unies voilà alors euh, Kajali Diakité bi. ñoom ñi euh, Assimi Goïta bi ñu doog a jël le pouvoir au Mali bari woon na même fii au Sénégal ah, ñu doon wax naan c'est une c'est une bonne nouvelle pour le Mali am na ñu doon wax ne c'est un euh, xam ne ci euh, ku ma doon mu ne on n'applaudit on n'applaudit jamais des militaires parce que après da ngeen bëgg ñu jógee ci pouvoir bi ñu lànk duñ fa jógee dafa mel ni situation boobu la agsi vraiment man li ma mën a wax moo di mhm. effectivement njort rafetoon na woon ci militaires yi ci lu bëri njort rafetoon na non man je suis d'accord avec ça mhm. njort rafet na bu baax ci militaires yi parce que militaires yi bi ñu ñëwee d'abord nit ñi dañ ko tuddee coup d'état mhm. mais man ci sama wàllu bopp man xalaatuma ni coup d'état la lu tax ma ne coup d'état mhm. parce que coup d'état il faut ñu expliquer notion bi lan la notion coup d'état lan la pour ñu xam ko il faut que nit ñi mën a d'accord ci notion coup d'état lan la. Hmm. defe naa foofu tam am na loo xam ne lu lëndëm na te di ñi. ñu ngi wooyee coup d'état la. <laughs> non non ñu dënd parce que aussi. moom de bàyyi ma bàyyi ma wax. non non non bàyyi ma sama wax. <laughs> il faut xam nga ma ak yow ci lu bari d' accord <laughs> ah d' accord ma yow ci lu bëri. très bu la neexee mën nañu fa faa na wax daal d' accord ma ak yow ci lu bëri bëri pour mu donc alors. man je me suis dit. voilà am na situation boo xam ne ngeen baal ma wax léegi dinaa ci wax français parce que sama wolof de moom. allez-y politiciens yi. Uh-huh. ak société civile. ak population surtout. et li li gën a li ma gën a seet li ma gën a ràññee surtout. mooy boo gisee politiciens yi doon ak société civile yi doon xeex. Euh, euh, kii nu mu tuddati. ti IBK. Mm-hmm. li leen dooleel mooy population bi nga xam ne dafa sonnoon. bu doon politiciens yi kese du dem fenn. parce que ñoom yi neen lañu. dans tous les pays africains pos opposition pouvoir ñoom yi neen lañu tey dañuy xuloo suba ñu juboo ñu toog waxtaan. di naan population bi di seetaan. bi di seetaan mais boo gisee opposition bi am doole ku mel ni euh, imam Dicko. am doole dafa fekk ñu euh, sukkandiku ci population boo xam ne dafa doyal dafa doyaloon. dafa doyal doyal boo xam ni boo nekkoon ma Mali ci jamono yooyu avant événement yi di xew ci nga xam ne ñii dañu doyaloon depuis ci élection bi élection présidentielle dañu doyaloon ci pa bi bañ ne bañ dañu doon ne Bouakabla Bouakou Katabla à Babla ñoom loolu la ñu loolu loolu mooy ci wolof pa bi bàyyi pa bi na du bàyyi mais na bàyyi mais dina bàyyi parce que ñoom ci loolu lañ nekkoon depuis mhm. pa bi na bàyyi pa bi na bàyyi pa bi na bàyyi paa bi ne du bàyyi du bàyyi du bàyyi. Mhm. ci la nekk nag ba. Euh, euh, kii fekk ko ci xaritam la woon euh, kii Diko. Mhm. Mahmoud Diko. Mhm. xaritam la woon mais bokkoon moo ko fal. moo ko faloon. xarit IBK la woon. IBK boo faloon ñoo ñoo ñoo ñoo bokk buus. ils se ils se connaissent mais bu dul woon lii de population bi doyal. ñii nga xam ne ñooy yuuxu di def ay meeting def ay kii ba mbem mbir mi toll nii. ñu am doole boobu donc d'une part il faut distinguer. les acteurs. Hmm. la population les acteurs politiques donc. Euh, donc l'opposition et le pouvoir les acteurs politiques. voilà les acteurs le pouvoir. Hmm. et la société civile. pouvoir soutenu par euh, donc la communauté internationale. parce que c'est un pouvoir entre guillemets légitime. Hmm. parce que élu. bon mais il tient sa légitimité de qui. de la population mais la population en avait marre. combien de ne bàyyi na bàyyi na bàyyi na ba finalement. kenn dundatul Mali. Mhm. quatre mois durant dëkk bi doxatul. kii du bàyyi kii du bàyyi kii du jàpp kii du jàpp finalement les militaires ont dit on va les séparer. Oui. comment on va les séparer nous on s'interpose on les met tous de côté. Mmh. on prend les choses en main. loolu moo tax nga ne dugg daal. pour les man pour man dafa dañ ñëw takkale leen ba pare ñoom ñu jël situation bi te bi ñu ko jëlee. Mhm. nee nañu ñoom on n'est pas venu pour rester on veut. créer des institutions solides dans le cadre d'une transition concertée mhm. avec toutes les euh, populations, les populations, l'opposition, la, la, la société civile et le, le, le, la majorité. Mhm. On veut mettre en place des institutions solides et aller vers des élections dans un temps raisonnable. Mhm. Mais qu'est-ce qui s'est passé La communauté internationale, nous, dans nos imposé. Nous savons que nous mais il faut pas que les gens oublient que les militaires là aussi. ñoom itam omi réew mi la ñu la ñuy dundee fa la ñuy. Euh, ils vivent les mêmes problèmes que que la que la que la société civile. Mhm. que le que les que les civils plutôt la population civile. Mhm. et surtout en plus ñoom ñooy dee ci front bi bu ñu seetee temps bi gars yi euh, euh, IBK nekk au pouvoir mhm. mais combien de fois. il y a eu des des, des scandales yoo xam ne dafa apparaître foofu ni bon euh, ils ont acheté à coups de milliards des armements qui ne sont même pas fonctionnels ça ça fait mal aux, aux populations oui. ça fait mal à l'armée ah, et l'armée est en train de perdre des hommes à chaque fois mais l'armée là c'est pas n'importe quelle armée toutes les, les armées africaines maintenant ont commencé à changer de visage mm -hmm. ce sont des armées constituées d'intellectuels des gens qui ont une maîtrise de la géopolitique internationale et qui connaissent un peu les populations et qui vivent parmi eux et qui savent ce qu'il faut mm -hmm. Mais pour, pourquoi ne pas croire un tant soit peu à l'honnêteté et à la bonne, à la bonne foi des militaires, des militaires. et croire qu'ils peuvent mener quelque chose de bien dans un pays Pourquoi tout le temps retomber sur eux à bras raccourcis man loolu la xamul. pour pour yow si on les su leen bàyyi woon. si on les avait écouté parce que voilà si on les avait écouté transition du yàgg on avait écouté la population. parce que en fait bi ñu ko bi ñu bi ñu ko def comme ni ñu ko waxee tout le monde avait dit que les militaires bravo. pourquoi mais parce que les gens en avaient marre il fallait quelqu'un pour les pour les départir. les, les, la communauté internationale dont on parle, la CDAO, l'Union ils ont tellement fait de négociations pour essayer d'intervenir de, des de gouvernement nationale, tout ça. La population a dit, on ne veut pas. Et c'est vrai. Ils veulent veulent qu'il parte. Hmm. Parce qu'il a fait ses preuves, il, il, on a vu toutes ses faiblesses, et si on laisse continuer, ça va aller complètement à la dérive. Ils étaient dans la dérive, mais ça va aller complètement mais maintenant il faut trouver d'autres solutions mais il faut que même kon kon na seet ñu ñu mën a wóolu tuuti nit ñi nga xam ne ñoo nekk seen biir réew ñu woolu leen tuuti xam ne ñoom tañ bëgg nañ seen réew am na lu ñu mën am na lu ñu mën mais bu ñu xalaat nekk parce que bon on a voté des lois à l'OUA on a voté des lois à la CEDEAO coup d'état c'est exclu coup d'état si si mais coup d'état la moo koy indi mais bu ñu waxee coup d'état rek te waxuñu lu tax coup di ñëw loolu la ñuy war a jëkk xeex balaa ñuy naan coup léegi da ngay xeex voilà parce que loolu bu amul moom coup d'état du am. <laughs> c'est ça le fond du problème. il y a quelque part euh, euh, une mauvaise appréciation de la situation au Mali. Mhm. qui a conduit à tout ça.